ra bi euh, je crois à partir de vingt heures moo ngi noonu mu yaa euh, dina nekk foofu sa euh, salle bu xam ne nii moo nekk foofu sa pale ñu tuddee casino donc fu mu toll na soldu out voilà soldu out dafa def man image la donc bu fekkee image la dem si li nga xam ne mooy image bi daal di ñëwaat si plateau bi mu toll ñu moom si ay répétition moo ngi noonu mi yaa gisee foofu sa casino bu Paris tey à partir de vingt heures euh, ne ni mooy nekk balance bi donc fu mu toll net répétition yi gannaaw mu ko commencé fii si Sénégal wër artistes yi la plupart euh, tey gis fi nga xam ne ni moom moo nekk Wally Ballago Seck waaye surprise bi nga pas je sais pas si c'est c'est une surprise ou pas en tout cas daal mooy li nga xamee ni moom la Ousmane doon laajte léegi moom la Ousmane doon laajte léegi naan lan la muy sold out Ouz. Mhm. noo gisee sold out bi. out mooy génn. soldu léegi mooy soldu léegi xaw ma nag dama xamul dañoo lambale wala dañoo dafa jeex maanaam bii daa mooy soldu aaw depuis démb bay na depuis démb loxo yi ci kaw doo xool loxo yi ci xanaa danga loxo yi ci kaw doo xool loxo yi ci kara danga loxo yi ci kaw doo xool mi yaa gis toog na faras doo doo xool mi yaa ngi seetaan na baraat masala lii mooy sunu ndam waaye lii mooy sunu mbégte oh Sénégal qui gagne moppi <laughs> ah, naa lii la oh macha allah encore moom moo ñun nan sant kuy musicien Sénégal nañu gërëm télé Sénégal dëgg la waaw promotion bu jàpp jàmm dañ leen di dimbali ci lépp nag dëgg la fii télé Sénégal nga gis musicien bu fi am bis ñu toog di ko wax. dëgg la ba bisam ñëw réussir ñu njukkal la. Mm-hmm. te si insister xaaruñu ci dërëm. voilà maanaam moo tax nañuy nañuy reconnaissant. ñoom mm-hmm. ñëpp nag laa koy wax. Mm-hmm. tàmbalee ko ca ndeyam bi la gawaali sekk jëm ci suuf nañuy reconnaissant yi ñu leen di defal surtout télé Sénégal sama baat ca kaw. ñun ko ci am bis ñu concentré ci sa bis dañ koy wax ba mu jeex. ñu félicité la. dëgg la. di wax nit ñi pour ñu épauler la dooleel la noonu la nag ndax dañoo xam suñu wareef rek def ko ndax nit ki ñun nekk bu nekkee fii Sénégal ñun suñuy musicien lañ am ñoom ñoom ñoo féete ñëpp kaw ci man man pour man waa Sénégal a dàq way ñëpp de kenn dàqu leen way dafa soo ma tegal faalewu ma leen man ñoom rek noonu ñu leen di soutenir ñoom noonu nañ ñuy jàppalee noonu du ñu soutenir mu mooy tey sax maanaam da ngay génn ngay musicien wala def interview. Mhm. na la jaral nga woo ñeenti site kese ngir am loo leen may. Mhm. boo paree nga coché beneen yoon nga waat ñeenti site. Mhm. ñeneen ñi du ñëw nga coché. dëgg la xam nga lan la ci ci ci jàppale la. mais dafa dem bay am sax ci suñ biir. ay jëlante koppiwante kolante ay gënalante. dëgg la ay ñee koy toj ak fii kenn toju ko fii boo waxee dëgg ñu gis ko boo fenee ñu gis ko kon kenn toju ko. ça c'est sûr. Ah, yooyu yooyu dafa baax ci communication. Mm-hmm. yooyu dafa baax ci communication. tey jii nga ni nga ni Wally Seck ñëw ne maa ngi def sortie soxla naa Dakar Buzz Sen Buzz Dakar Live Jàmm ji FM. Mm-hmm. ñooñu waaw ñooñu laa bëgg. nañ ñëw ñooñu ñëw yokk nga seen code. xam nga tax dañ leen di suivre dañuy am ay abonné mhm. beneen bii ñëw mais yaa gise génn na wax dëgg fa yàlla ñii ñoo demoon fee mais kon bii Télé Sénégal nañ ñëw mhm. Dakar Dakar Live ñëw Feeling Dakar mhm. ñëw Univers Info ñëw maanaam yokk ci yo yokk ci ne ne bataaxal bu mati cartel Diop te nekk bitim réew na ñëw mooy dawal live bi comme rajo. ndeysaan. yokk nga leen doole. Mm-hmm. waaye tey artiste bu fi jug fuy boo ko bëggee invité sama naan non c'est que euh, est-ce mm-hmm. lan nañ bàyyi bal bal lu baa ñu jox la rendez ba desul dara lu dul interview ñu naan la damaa nekk fii. Mm-hmm. faussé la ci dernier moment. nuñ leen nuñ leen di dimbali ñun niñ leen di dimbali. ñoom it noonu lañ di war di war di war di ñu dimbali lu dara. Mhm. ñoo bokk liggéey bi di ko joobandoo dafa war a rafet. te kenn ah, mënu cee dem ah. foofu moom dama si dama si saluer ki nga xam ne mooy Mia Guissé parce que avant muy dem benn télé euh, site internet la la woo ba pare. Mhm. wax maanaam ñoom la. événement bi si ñoom la ko njëkk waxee. Mhm. balaa muy dem si nga xam ne ni moom moo nekk. Euh, si influenceurs yeeg ak yi nga xam ne ni moom moo nekk euh, artistes yi. donc mu doon li nga xam ne luñ rafetlu la alors Nana. na nga gisee soldu out bett la. non bettuma xamal lu tax boo boobaak léegi mi ngi pourvé Mia boobaak léegi mi ngi pourvé eh, di def ay ay ay euh, mbiram te wax dëgg yàlla xëy na critiques yi bari na euh, wax yi bari na ŋàññ gi bari na mais terewul mi ngi avancé ci musique bi euh, loolu moo loolu mooy dee leen wax man may liggéey mhm. dee leen critiquer man may liggéey te tey jii lii da koo firndeel mhm. Euh, waaye nag euh, moomoo ku ñime dañu laa dey ma gis euh, Bijou Ngoné mhm. ca wet ga mhm. moom it mu doon jigéenu jàmbaar moomoo doon jigéenu jàmbaar jàmbaar fàkk tëdd mhm. nga xam ne moom ci wàllum événementiel moom macha allah ku bëgg sa événement njàkk nekkuñu fi nag pour pour pour def publicité wala dara. publicité la am <laughs> waaw mais non sérieusement. du du du non sérieusement ñu doon fay. léegi ñu doon ay minutes ñun ci publicité lañ dëkk. dëgg la ñun concentration yi ñuy jël ci ci ay bisu nit rek. ñun ci publicité nit lañ dëgg la mi ngi noonu donc euh, du du publicité du dara mais événementiel euh, képp ku bëgg sa événement jàkk moom boo ko ci woowul it di nga woo ku takk ci moom. Mhm. kon euh, moom bu jàppee ci mbiri miyaa wala miyaa woo ko ne ko kaay jàpp ci loolu war na te moom xam na waree fam mhm. gis nga originalité mu ngi doon ci nga bëgg sa réew. waaye tamit di fexe nu sa réew di développé fexe sa réew nu muy développé mooy ci musique laa yëngu dinaa fexe ba képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllum musique wala nga yëngu ci lu ko jëmal kanam dinaa la dinaa fexe ba woo la ñu ànd dem ci événement bërëb sàngam ak événement bu mën a doon nag xëy na bu mu yaa gisee bi la ñuy wax mais ñun dañu koy félicité mhm. félicité bi euh, du am àpp xam nga lu tax xale la nekk ci yoon jaar ci ay tolof tolof ku ne di wax mm-hmm. mu ñëw prouver wan na leen mankat kat fii laa teg sama bët te bu soobee yàlla ngeen di wax dinaa fa yegg ngeen di saaga dinaa fa yegg ngeen di critiquer dinaa fa yegg. d'accord donc loolu noonu moom mooy prouver sold out bi maanaam bee yi nga xam ne dafa jeex avant concert. Mm-hmm. donc macha ñu ngi koy wax laaw la cat concert bi yàlla na nga ko tëgg ci jàmm ak salaam. ba yeneen ni bés yeneen ni dat topp ci ak sa moroomu artiste yëpp ak képp ko la ko yéene. d'accord c'est la musique sénégalaise maa ngi lancé benn message. bu am mhm. solo moomu. Mhm. message bu am solo. no face. Mhm. na nga seetaani nag. ki tax mu seetaan jaaxal nga. pourtant man maa ngi koy xaar ci concert ba oh, nag. moom moo loolee nii bu doon surprise. dafa am yoo xamante ne. loolu dina garaaw de du dara du day rafet. parce que day tey moom day xam ni sama miyaa. Mhm. te miyaa kooku tamit. te bu boobaa man day xam ni sama miyaa. Mhm. borom jom la. dëgg la def mbir xam nga lu tax. Mhm. neex naqari dafa def ci miyaa. wax na ko te miyaa keroog na ko tey. miyaa ko billaahi neex naqari dafa def ci moom. am ak moom njaboot. bu dul dara sax. pourquoi pas nu fees jël doomam. ne ko nañ dem booy sa yaay tey mu toj farage booy casino mbégte la. maanaam dina am leneen lu mu juraat. xam nga lu muy juraat mooy jàmm booy jàmm jàmm gën lu dul jàmm. Mm-hmm. man bëgg naa fa ki sema xam nga xam nga fan yi dañ doon set dégg bëgg naa dégg nag sema bo waaw affaire bi naay set du dara mu mu man xam nga ban woy laa bëgg a dégg nag laaj leen ma lu mu saf lu neex li ma nar ci moom nii loona du jeex. dootu eh, ma lu mu saf lu neex li ma nar ci moom mi du jeex ñi jéem tas suñu lii. ndeysaan. xamuñ yëkk yëkk bu mel nii. non amul. oh. yaa sa kakaaw pur bi. man na xam nga may xam nga may rey. dugulaw bu rafet baa ngi nii. laay ndeysaan. daa may daaneel. oh. danga ma ne moon maa ngi nii. mu ne kon man la dàq maa ñibbi si. d'accord xam nga la way bi commencé. waaw papa bi bàyyi ko. sama xolam ma soy. dem na daani doole bàyyi maa ko reetaay. yaa ma daanu ma tali. même temps <laughs> waaw waaw wax leen leen daf leen leen neex bu mu toll wax leen leen neex daf leen leen neex temps bi bu ñu coupé. balaa ñu ñuy dóor a ah, baax na rek. alors moom yow en tout cas <laughs> voilà. dañ la hmm. jësiwaat. <laughs> alors Mia ñoo koy félicité bu baax a baax. ba mu fekkee oh, soirée bi commencé gu sax tey à partir de vingt heures la alors moo xam waa Paris Canada euh, France sax laay wax Italie ñu yëpp dem leen fa ku xas ba jënd bee pare sax même boo jëndu sax dama taxaw si bunt bi donc moo ngi noonu alors Mia euh, félicitation. d'avance donc mu ngi noonu day gis ni nga xam ne. yow de mënuloo dem yow. Euh, dem waaye sama xel dem na. te dinaa ko ban. Euh, Waly Seck dem na. ah bon. Waly Seck Waly bu demul nag ñu laaj ko ko nag. Waly na te en plus Waly dina tëgg allah le 21 décembre je crois. Euh, date bi le 7 le 7 décembre merci beaucoup. mais Waly xam nga xam nga faamu xam nga ni Waly Seck faamu def fii. waaw faamu def. soo bëggee ma lay wayal. Ah, nañ dem ci ay ay ay. demal hmm? soo bëggee fa loolu loolu fa la ay. Ah. bëggee ma lay la. demal foofu la li ngeen may laajte jóg dégg ngeen mbaay. ah. xalilu laay. <laughs> <laughs> Ah, daa mooy daa mooy. bu paree naan ni ndigg li waali naan ni. xam nga ni li jàpp lii la jàpp. waaw orientation yaa gisuma ko de. Oh. loolu faaw may ko faaw ñu may ko gars yi live. waaw yii loolu dafa fees. loolu faaw ñu may ko gars yi bi mooy lii jàpp oh, ceinture bi. waaw ko jàppee moom. waaw day dem. non na ko jàpp rek na ko jàpp rek. barki rasulullaay mais sànq maa ngi wax na ñëw. Ankara na ñëw ndax affaire yi rafet na. Hmm. mais na fa sapeur nekk. dëgg la de. dëgg la de. <laughs> day xam ne yàlla. man leer na bu gàttee Mia ak bët ak bët. waaw non waaw yow kii boo demee mi ngi xam ci lu kenn yëgul. grand laa lay sànq li ma doon wax noonu maa ko doon waxale. Hmm. mais xaaral rafetal nga ko doon. day xam <laughs> da nga doon rafetal je t'assure maa bu demee du sapporu France ñoom te bu te du benn ville rek ay dem de na cinq ville de wuur ndax doo xam fan a nar a nit baax na dëgg ah, sérieux ñu ngi xaar ñu ngi xaar euh, présence am mooy ah. doon surprise ñëpp man oui présence am plus sapeur pompier en en cas xaar. ñu ngi koy xaar au cas waaw pour soo ko retour. alors moom noonu voilà Yolande nee na 7 décembre incha allah merci beaucoup euh, foofu sa arena. 7 septembre Adidas arena 7 décembre. ah ok 7 septembre. 7 décembre voilà. waaw ñoom c'est-à-dire alors moo ngi noonu incha allahu rabi donc moo ngi noonu rendez-vous ne surtout pas manqué incha allah yaa na ko fekk jàmm le 7 décembre incha allah foofu sa Adidas. ba pare ba pare nag en Francis euh, Momo merci beaucoup mais bàyyi Francis di jàppale mi yaa gisee ma lan la nag. je hmm. suis je suis je suis. waaye waal tamit waal mi yaa gisee nag. non man moom daf ma neex. xam nga lu tax. Hmm. parce que xam nga ku xam waal yi xam ne dafa bëri yërmande. waaw mais ja waal na xanaa mu yàgg si moo ngi fi la mais déglu ma. la moo tax waal du jàppale Aji Ousa. Hmm? kii am na kii. am na ko jàppale Abbas Diadio. Euh, kii. limal. Titi. Titi waaw moo tax waal sekk ko jàppale. Ah. waal sekk la moo tax moom jàppalul Viviane. yàlla baax na. li ngeen bàyyi. waal sekk mu la moo tax jàppale kii. Réma Diop surtout waaw. mais nag Mia daa neex a jàppale kaay ma. mais waa Seck mu nga Mia déglu ma Mia dafa neex a jàppale. mu bu waxtaan rek neexee maanaam ñu bàyyi balaa à part waa déglu ma balaa à part dafa neex a déglu ma dara xam naa la. Mia Guissé dafa neex a jàppale. Hmm. fraîchement divorcé fraîchement. divorcé eh, dafa divorcé vrai fraîchement belle. dafa divorcé rek fraîche. waaw muy fraîchement divorcé. ba pare brillante di glow up. waaw muy glow up de. waaw ah, moom kooku kooku dafay neex a jàppale. ba pare xam fi muy teg tànkam quoi qu'on puisse dire Mia Guissé mi ngi prouvé comme. kooku noonu dafa dafay neex a jàppale ma man damaa posé te waal yi waal yi waal yi ak loo ko mën a waxal nangul ko ni moom dafa bëgg kuy ku ku ku kuy prouver ça c'est donc des fois nag du ñàkk nga gasal nit ñi pax xam nga. Euh, loolu yëpp ci showbiz la bokk. Mhm. mais daal xam naa ni moom ni muy jàppale mi yaa gisee moom sample. ñaareel daba sëy bi waaw dë dëgg la kay Fama Kassé. nee na ndax ñaaree daba bi dëgg la man dëgg la kay. dëgg la. waaw ah, Mor dafa takk ñaareel. gisoo image. je ne l'ai pas vu. ah ma am na yu ma gis de. je suis désolé mais dafa. Hmm. Mor mu daba sëy. ban góor moo la wax Mor mu ne waa sax du takk ñaareel. dafa waat ne takku man ba léegi waxuma loolu. dama ne la dama ne daba sëy ñaareelu hmm. may laaj ndax Mor Mané. Hmm. jëkkëru daba sëy. ndax moo takk ñaareel waaw wala déet. c'est aussi simple que ça waaw li naa li naa si kaw ñu ni Mor Mané Mor la tudd. waaw moo takk ñaareel. ku xees la wala. ku xees la de. lu ñuul ah da nga kuy doxaan ku xees. ah yàlla. yaa ku xees la wala ku ñuul. dama ah <laughs> la ku xees la takk ah, dama dër ku xees la takk wala ku ñuul man lii laa wax de. Mm. ah moomoo nag kii mi may dugal de yow mi ah Mor noonu kii. man noppi naa bu yàgg. ah mën na nekk clip. mën na nekk clip aywa yàlla nekk clip waaye aywa yàlla nekk clip waaye. man daal déet naa ko daal xaw ma. ay waay yàlla na nekk ay waay ay waay ay waay yàlla nekk clip waay ay ay waay tiflil fii yàlla na nekk clip. pour lan may tiflil ay waay ay waay ay waay yàlla. alors alors euh, merci beaucoup merci beaucoup balaa may pare damay damay damay damay jaale bu baax a baax. ñi nga xam ne nii moom mooy euh, waa scène yi du Sénégal donc euh, Pape Pape Mademba Pape Mademba donc ñu ngi koy ñoo koy jaale waa scène yi yëpp donc ñoo bokkoon. classe troisième donc mu nekk xale bi nga xam ne nii. bu dee kii euh, moo tax àdduna kenn kenn xamul dara. dëgg la ku aayoon je t'assure buy bokk classe yi. Mhm. bokkoon ne si si meilleur élève yi. Mhm. si si meilleur élève yi. Mhm. yàlla xamul loolu nag ku ku bëggoon euh, sëñ Touba. bay nekk xale ba léegi si affaire xasaay bi lay nekk. bu doon ñëw jaay affaire euh, kii yoo ab gi ñu koy sax. njalabaani. yëre yi ngeen yëre muy di sol. isbu yi isbu yi moo la doon sol tout le temps donc mu ngi noonu nekk xale donc. ay loolu dem université accéléré macha allah boo gisee photo bi nga xam ne sax moom la gars yi publier mu ngi sol tëneem euh, donc franchement euh, yal na ko yàlla xaare àjjana si barke mhm. Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Pa Mademba repose à mhm. toi mu mhm. de donc di ko jaare waa lycée a bokkoon classe oui a bokkoon classe lycée na ko yàlla yërëm ko àjjana repose en toi repose en paix donc moom ngi noonu moo tax gars yi ñoo ngi koy ñoom ñëpp ñoo ngi ànd la que nous voyons ton sens de l'humour et ta belle voix scandalistique et xasida de maam Cheikh Ahmadou Khadim Cheikhul Khadim va nous manquer gis waaw ah, moo tax def lu baax rek moo am solo. Mhm, mhm. jërëjëfati alhamdulilah alors den jox rendez-vous incha allah demain alors lundi incha allah rabi. ma tey man kay xam nga lu ma perturbé. Hmm. ñaareelu dabasay bi dëgg la. yow yow ma sa yoon yow xaaral sa tur dama lay laaj xaaral sa tur ñëw sa tur dina ñëw too bu dee dëgg la di ku am ku ku bëgg borom këram takkal nañ ko ñaareel bu dee am na nag laa wax yaa ngi bëgg nga sa sa borom kër yaa wala da nga yaakaar ni yow doo am ñaareel dama lay laaj fekkee da nga dëgg sa bopp da nga ah, déjà dama déstabilisé wu bu ma ci doole na waane nga de ñaareel jàmm yow nga déstabilisé wu ak noonu na naa waaw yàlla na nekk kilib waay ay waay yàlla na nekk kilib waay Yolande neen loolu moo taxoon muy jënd kër Yolande moom moo gën a bëgg kaa ñëpp Yolande bàyyi bëgg kaa Yolande bàyyi bëgg kaa nga je donc c' était pour ça <laughs> qu'il a acheté une maison pour sa première femme ah, kii muy us dëgg. Hmm. yàlla baax na. moo tax góor bu la takk dundalee or. Ah, bu dee dëgg la. wala dundal la oto. bu dee dëgg la wala jox cadeau. bu dee dëgg la. xamal ne sincère bu dee ñaareel la am na nag us maa dëgg la. alors merci bu dee ñaareel bi dëgg la. mu tàgg tàggatoo tawfeex Mor Mané nekku ci. foofu li wax ne. naa ci yow tàggoor rek. tàggoor na yàlla defal ñëpp jàmm ñu ngi jaar nag. ñu doon seetaan ñëpp. maa ngi ziare ñoom Yolande. Mama mhm. Sow ñëpp. di leen béggee sama yaay ji Fama Kassé ñu ngi lay jaar bu baax a baax a baax. Marie-Pierre Thiam merci beaucoup toi aussi ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee. Uh-huh. di jaar sama yaay ji depuis Washington Kodou Diak. naan ko yàgg naan ko yàgg fi rek moom suñu yaay ji. Uh-huh, ñu ngi koy nuyu bu baax ah, maman Kodou Diak foo xamante ni fu mu toll mu ñuy béggee. mu uh-huh. kulli bari merci beaucoup. mu ñuy safoo mu ngi ñuy ñaanal mu ngi dolli. dafa baax maanaam ay gone bu ñu nekkee ci mbir. di góorgóorlu nga leen di ñaanal di mhm. leen encouragé te suñu yaay Codou Diack noonu la demee ak ñun saa su nekk heure bu nekk waaw bu gisee lu baax sax yónnee la ko ay ñaan ak nangam sangam xam nga yónlu waaw loolu ku dëgg moo la bëgg dëgg koy def koy def bu lay sa diine la ah, ko ku moo tax nag euh, daf ñu bëgg moo tax ñu ngi koy jaaraat bu baax a baax mhm. di jaar bu baax mati cartel job mhm. suñu yaay ji moom moom it na am tawféex rek ndax jàmbaar la kenn du moom waaye suñ fàllu ji. merci beaucoup ñu ngi leen bu baax. merci beaucoup alors di jox rendez-vous incha allah euh, lundi incha allah si beneen émission lu bees taxawut émission lu bees sur Télé Sénégal télé bu mag bi jaajëfati.